mbokk yi ñu ngi toog koo xamante ne vraiment kenn du ko présenté ci réew mi muy Sa Touba Sa Touba yàlla may ko xam-xam macha allah mu nekk nit koo xamante ne day yëngu ci wàllu ñaan tey ñu fekk la fii Papis xarañ loo woote ay ndogu ñu gis fi Sa Touba bëgg nañu xam kañ nga jóge Touba kañ nga ñëw teewaay bi lan moo ko waral. waaw auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu gërëm suñu ñaari waajur di ñaanal suñu xalif général Serigne Mountakha Mbacké Bassirou mu yàgg fi lool te wér di ko ñaanal mboolem xalifa généraux bu nekk ci réew mi. di ko ñaanal itam ki nga xam ne moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall sunu borom yàggal ko fi lool muy Cheikh Modou Mbenda Fall sunu borom yàggal ko fi tamu wér ba lim naar ci liggéey Cheikh bi yàlla motale ko ci barke alxuraan. noonu la ñuy itam suñu xarit suñu sëriñ suñu lépp bàyyi jili mbàkki borom léegi léegi di ziar itam suñu nawle bi di sëñ Cissé ak Mor Cissé gaa yi nga xam ne moom lañ fekk yëpp ci kër gi ñu ngi ziar ñëpp bu baax a baax. waaw man nag Touba fan yëpp maa ngi fi di waajal bis ndax suñu diggante Papis moom li ñu boole du sax affaire xañ na ci Modou la ko yàlla jaarale mais dañoo bokk sëriñ bi ñoo bokk sëriñ Touba mu doon koo xamante ni comme niñ koy waxee rek li yombul. parce que tey am na ñoo xam ne seen alal ñu ngi koy jël di ko dajale ci leneen di ko jëmale ci leneen mais chaque année muy jaayante di jël alalam di ko def ci bis yu mel nii di ci sant imaginer ñaata nit ñoo fi dajee tey ndogoo fi loolu rek yàlla na ko ko yàlla fay defal ko ko yiiw euh, di ñëwaat ci ñi nga xamante ni ñoom la ciy rendre hommage muy ñu fi bàyyi ko muy Aline Thiaw ak xarañ Medina comme ni ko jamay ka waxee léegi di ko di ko ñaanal yàlla ñoom ñu fi jógee yàlla na suuf oyof seen kaw fañ nekk yàlla na leen dàqal fii ci barke Seydina Mohamed njaboot gi ñu fi bàyyi itam yàlla na ci suñu borom teg loxo ci barke alxuraanu karim actuellement bu ñu jubloo ci koor gi sëñ bi ñaan gi nu muy demee da ngeen di nekk fa ngeen nekkoon wala da ngeen di aj bagage yi ba ñu wari. waaw boo gisee ñuy xaw a daw sax di isolé wu loolu moo koy waral parce que bu ñu nekkee fële dëkk ba bëri na ci ñoo xamante ni doo leen mën a gàntu. te weeru koor ku ne xam ne na am na yu bëri yoo xam ne doo doo doo ci kii doo ci doo ci mën a nekk. damay mujj ñi nga xam ne ñooy jël si rendez-vous yi ci xambu yeeg yooyu di sangu seeg yooyu ak ñi nga xam ne dañ fa doon ñëw ngir ay yenn jafe-jafe kii ak yooyu ñoom lañ fay recevoir am ñu fa bàyyi ñu leen di toppatoo bu defee ñu daw xaw a noppalu tuuti ndax gëj nañoo noppalu trop wax dëgg yàlla incha allah. actuellement ñëpp xam nañu actualité bi sa diggante ak Modou loolu kenn du ko werante ñu gis Modou di waajal diggante ak Ama Balde ñu dem ba cappaandaw gi ñu ne Modou Lo blessé na ñii ci Ama Balde ne daa jekkuwul ñii ne dafa ragal ñii ne daa bëggatul combat bi yow lan nga ciy wax. loolu xam nga tey. am na ñoo xam ne xam nga supporter nu ko neex lay waxee mais ñi nga xam ne ñooy ay nit yi Ama Baldé dëgg sax xam làmb xam nañ ne Modou Lo du tafale ci làmb parce que nañ ko natt ci seen bër rek Ama Baldé musul daw combat am déet parce que ku mu jàkkaarloo day yaakaar na moo la loolu moo nekk ci Modou ku bëreeg Bombardier bëreeg Balla Gaye ñaari yoon bëreeg Lac de Guiers bëreeg Eumeu Sène bëreeg Gris Bordeaux wax dëgg yàlla bu ñu la yàgg Ama Baldé bu ci nit waxee ne day daw combat bi sax war nga xoolaat. daa jékkuwul buñ ko waxee xel nangu. lamb ju jékku loolu nekku ci xam nga lu opération am. Hmm. loolu du doonut lu jékkoog lu ñu jékkoog doonut koo xam ne mbër boo xam ne da ngaa créer blessure wala nga créer ay tap wala dara. ay fii am na fi mbër yoo xamante ni làmb mun na ñëw xam ne baaxul <laughs> sànni la tap yomb na dañ la koy sànni foo xamante ni xam nga nga renvoyé combat xam nga waa Ama Baldé nee nañ Modou dafa jekkuwul de ah, laal fu nekk ci wàllu ñaan ñu ne ko da daanu moo tax jëlul ko. bala ñoo xam ne jekk nañ wala jekkuñu ba bis ba jàmm incha allah xam nga dama ci dama ciy lancer wala affaire xam nga lu mel noonu am na na ci benn koo xamante ni ci gaay mi la bokk. Hmm. mu jënn ci stade bi waa ji Cheikh tudd sax suma juum damay tudd turam. Hmm. bi mu jënnee dafa indi woon mbër bu doon bëre hmm. mu ne euh, lamb ji. sëriñ bu ci wóolu sa bopp da ngay indi mbër muy bëree di daan indi naa vingt six mbër daal dina xaw ma ñaari mbër xaw ma ñett ñoo ci ñàkk seen combat lamb ci kanam yëpp xam ne ni muy demee waa ji laaj ko ci mu wax ca lam cay wax waa ji ne ko combat Bombardier Eumeu Sène mu ne wax naa ko ba pare Bombardier daan na Eumeu Sène mais après dañoo mujj supprimer waat vidéo bi ci YouTube bi euh, ñoom dañ ko supprimer waat te vidéo bi man demoon na ba jot ci boo duggee YouTube fekk ko ci Pape Sarr may dégg gis na gis na vidéo bi ba envoyé envoyé woon na ko sax man it ma tomante moo koy envoyé mu gis ko xam yooyu gis na yàlla damay wax chaque jour kenn du ko jiitu ci ay mbiram lu waay mën a am ci àdduna yàlla moo la ko may ak koo mën a doon dama koy faral di wax lu bëri nee naa ñi naan neex yàlla am naqar yàlla am dañoo réer seen i bàyyi leen fi jiitu fopp te dem nañ te kenn jëlu leen ko dul yàlla suñu borom bi te mënuñ leen a delloo si kon yàlla rek a fi ne suñu borom moo mun a wane lu weex tàll ba ñëpp gis ko mu def ko mu ñuul kooku kon nag buñ koy jiitu ci ay mbiram lim ñu may nañ ci yem di ñaan yàlla kenn ku ci nekk la ci yàlla wan na nga ko seqal nga wax ko ñoom mais devant le public ngay taxaw lii laay def lii laay def man ko wax dëgg yàlla. xam-xam ñu bari nee nañ combat bi gis naa ci benn ñaankat bu ne woon combat bi du am deux mille dix am deux mille vingt ñii nee nañ du am deux mille vingt et un ñii nee nañ deux mille nga Lamine wax na ko sëñ Modou borom Kéemaan moo ko waxoon léegi actuellement nii. naa indil leeral. Euh, xam nga tey combat bi dina amam du am gis nga man ni ma jegee Modou Lo wala ni ma xamee Modou Lo wala dara nañ bàyyi yenn sëriñ si nañ bàyyi di wut ay renseignement ci mbër ku ko jege ba xam ci moom yenn yi toog di ko waxee comme xam-xam dama lay wax lu garaaw. dañuy am renseignement ci mbër yi ba pare xam ne yow mi jég nga mbër bi mu informé la ba pare nga ñëw toog def sa sortie di wax lu la neex di waxee loo xamante ne xam-xam te li nga wax tegoo ko fenn te pourtant ñi doon wax loolu gis nañ fi bu yàggu dara dara dara am ay match match yu am ñu def seen i vidéo match bi jàll laa de ñu def vidéo nii réglé heure bi yëpp comme nga ñu régler heure bi yëpp dugal ko ci TikTok bi di wax na match bi ñu la demee ba bañ leen di critiquer ci TikTok bi léegi kon seen xam-xam xanaa yëgut foofu te pourtant ki doon wax loolu moo def erreur boobu match bu jàll ba pare match Sénégal bu jàll ba pare mu ciy wax ne Sénégal mooy dóor nangamu nangam te boobu match bi jàll na gars yi dugalal ko ko ci TikTok bi dee régler heure bi waaye dafa am lu ñu fàtte ba commentaire yi commencé lu nañu ko ciy wax am ñu naan ko ci bett nga maag yooyu dañ koy vi nañ bàyyi yooyu gis nga nit yamal ci li la yàlla may bul di dugg ci 18 jàmbur ba pare wëlbati ko waat ngay defaat yeneen conneries yoo xamante ne doo comprendre ñaandu ay caaxaan kenn ku ne li nga mën yam ci soo ko defee yàlla suturaal la teral la. solo mais dañuy ñëwaat ci Modou ba tey dégg nañ ni Modou actuellement nee na ci wàllu gàllaaj takk ak sangoog yu mel noonu ci wàllu mystique yu ñuul yooyu moom bàyyi na ko dootu ko def ci làmb loolu bu ko deful ban risque moo ko ci mën a fekk en tant que. waaw ñi koy wax xanaa xañ na ñoom la ko Modou wax mais ñun loolu Modou waxuñu ko gis nga nit. kenn ku ne Modou cër bi mu la war a jox jox na la ko te li nga xam ne moom laa nangoo ci làmmiñam mooy làmbu kenn ku ne li nga war a def def ko est ce dégg ñun ñun taxaw naan ay Modou dana def lii du laal lii du laal laa gis nga nit doomu aadama bu ne am na loo xam ne sa vie privée la yow yaa koy dund. yoonoon keneen néew ci ñi nekk di tàndatu di wax nii yëpp kenn la ci Modou jàkkaarloo na la lii ak lii ak laa la muy waxtaan ak ñun ñun la koy waxtaanal ñun la concerné on est en famille ñunu nen la tey am nañ droit ñun bëgg a def dara ne ko lii duñ ko def moom am na droit tey bëgg a def dara ne lii du ko def c'est mais am na loo xamante ni tey buñ ci bëggee pousser ñëw naan ko ay Modou Lo nit ñi ci waxi nit ñi ñun ñu bëgg àndu du sotti xam lan moo am solo mooy sénégalais yi xaar loolu nañ nekk ba bis ba ba xam loolu liñ war a def danañ ko def wala déet. am buñ ca yeggee ci kàttanu yàlla yonent bi lépp lu làmb laaj. dañ ko gis keroog dañ ko invité lu TV ñu gis ko mu jàng benn aaya te aaya bi day dàq njabar est que loolu du junj ci yéen ñi nga wax loolu xam nga nit tey ak ku mën a doon li mu wax noonu yëpp am na ci droit xam nga ci moom lañ ko gisee rek mais xutba imaam yaa ngi fi chaque jour ay yi ñu ngi koy jàng chaque jour est-ce que ma dégg la ku xam na ne yàlla mooy nattu doomu aadama ñun ñii ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi nekk ci xam ne da lay leer borom yaa ngi dégg waaye nattu la ci yóbbee yaa ngi dégg wax la bu loolu donc làmb itam ku ne xam ne li ci nekk parce que ku ne xam ne ni simmiku taxaw mbooloo war la xam ah, ne buñ ko tegee ci yoon rek doonul lu lu xamante ne lu l'islam jël la téyel ko boppam am déet comprendre nga wax la mais tey xam nga lan mooy risque waaw xam nga même bu dara xam nga nit des fois ci làmb lañ koy wax nii rek mais nit des fois am na ñoo xam ne dañuy gëm seen bopp gëm goo xamante ni mën ñu dund seen àdduna ba dee téere sax duñ ko takk est-ce que am dégg xam nga nit lu gëmul du ko jariñ yaa ngi dégg wax la yéen xam ngeen mu loo bu baax xam ngeen mu mooy kan ñun it xam nañ ko xam nañ itam lu ko affaire yi jaraloon xam nga nit itam des fois mën nga dem ba mu yàgg am na ci yoo xam ne say yaay xoolaat sa toogaay xam ne kat nit mooy te nit looy di dem na di gën a organiser wu am déet mais yàqalu ko dara ci làmbam li ñu war a def ci làmbam ci kàttanu yàlla ak yàlla yonent bi dañ koy def xam nga man benn affaire la contre xam nga nit ñi fi ñu yaakaare ñaan dafa sori wala dañu yaakaar na ñaan ay takk la ak ay sotteeg yooyu rek non dama leen laaj da billaahi wala léegi ku mën a toog fii xool ku nekk bitim réew yaa ngi dégg nga koy ñaanal li nga koy ñaanal di nangu te sotti woo ko gàllaaj takkaloo ko dara bu ñu neexoon ñun bu ñu neexoon laa bu ñu neexoon Modou Lo dem jël sër bi mi ngem boo contact kese dem làmb ji ñun li ñu war a def dañ koy def xam nga boo gisee mbari yi sotti ko ay bitéel ak yii wallahi la azim xam nga lan la parce que nag nañ waxante dëgg doomu jàmbur simeeku ñaata bët ñoo koy xool mbëri xaaj bi li ñuy simeekoo daanut mbër bitéel daanut mbër bu doon loolu dong dong yaakaar naa Balla Gaye ba du ko daan ah lim sotti ko ci stade boobu yaakaar naa bu ñu fa jiwoon gerte mu sax am déet te tey anamu ba mu war a ñàkk dafa ñàkk du affaire yi mooy daan ji nga nit yàlla pare ne démb tey door ñëw gis nga mbër bi war toog sa kaw ak foo mën a dem ci àdduna ak ku la mën a ñaanal ci àdduna mënoo wax a wax wax ba du la daan ah luy mystique daanul mbër déggul mu laax mystique dana la dimbale da lay dooleel comme entraînement mi ngi mel ne mbër bu dul entraîné mystique ci làmb ak entrainement yaa ngi dégg ma xam la ñooy yam ci làmb ban pourcentage laa jox troisième position laa koy jox waaw xam nga lu tax xam nga lu tax ma koy jox troisième position mooy mbër bi day pare njëkk am fitu bëre am entraînement xam nga tey cool li muy bëri bëri ji nga Mor Cissé mii bu ñu ko ngemboon tey yóbbu ko moom Modou Lo sëriñ bu ñu yóbbu ko fa it mënu faa jëlee ndam am déet dafa pare ba pare ñu ñëw mottali est-ce que am dégg tey sa dugub ji ngay bay bara nga ko mën a jariñoo danga koy ji ba pare di ko toppatoo di ko toppatoo ba mu mat li mu war a doon Modou yegg na o sommet. dinañ gis jouru combat Modou Lo Ama Baldé Modou Lo mi daan gis ci takku ci xarfa xuufa ci mystique ci lépp. leen mën a wax daal mooy lépp lu làmb ji laaj te ñu war koo def ñun danañ ko def. loolu déggul la ñun lu làmb ji laaj te ñu war koo def. pour yàlla may ñu ndam danañ ko defal Modou incha allahu rabi moom itam li war a def moom la concerné dana ko def man li wax rek wax dëgg yàlla am na loo xam ne sama secret la Modou du ci dugg. am na loo xam ne secret Modou la man du ma ci dugg. comprendre nga baax la waaye nag réeroo wuñ ci suñu biir ñun en tout cas. ñun ak Modou ci wuñ de ñu ngi waxtaan ak moom ñaan nañ yàlla ci kàttanu yàlla yàlla sottil ko mu am. ci kàttanu yàlla ak yonent bi li may wax rek chaque jour bëgguma di jiitu suñu borom ci moo xam li xew suba tey jii nii am na fi combat yoo xam ne ñëw nañ ba ci jour ba ba mbër yëpp ñëw te yeggul <laughs> mais yàlla ne tey Modou Lo Ama Baldé mënoon na demee noonu di comme li dal Siteu ak Papa Sow ñëw ba ci boobaa du doonaat lamb ju ñuy tëggaat day wàcce promoteur yi am déet programme suñu borom la moo ko nammee woon noonu tey amaana tey Modou Lo kii Papa Sow Siteu mënoon nañoo bëree mu demee neneen mais yàlla suñu borom bi gis nga ni mu ko programme xool ne li gën mu def ko comprendre na kon nañu bàyyi lépp ci loxo yàlla xam ne yàlla moom rabbi sama waati pare na démb tey du noor mm-hmm. ñu ngi